aleykum ñetti doomu aadama faat nañu leen ca réewum Gàmbi ginnaaw doxub ñaxtu bu ñu doon xamal vox populi moo ñu ko xamal ay kuréel yu duppee seen bopp triees jot na ñoo doon xamal doxub ñaxtu di sàkku ca Adama Baro njiit réew ma mu sàmm wanteeg lam digge woon bañ a laajaat beneen mandat ba tax ñu ne ko Adama Baro wàccal doyal nañ sëkk ci yow l'évidence yéene kaay ne waaye takk der ya làpp nañu dóor nañu dóor yu métti askan wa nekkoon ca mbe ma di taal ay pono ak a seetal am na ñetti ca askan wa ñoo xam ne neneen rey nañu leen am ñu bari ñu ca am ay gaañu-gaañu am na ay journalistes yu ñu fa teg loxo ak ñaari rajo yoo xam ne tëj nañ ko Vox Populi moo ñu ko xamal l'évidence yéen a kaay na ko rajo ba ñuy wax King FM directeur baak ña muy liggéeyal ñu bëri teg nañu leen loxo fañ leen a tuumal na fañ doon yee fitna yéen a kaay bi na en tout cas njeextalu ay bés bi Gàmbi tàngoon na jir Banjul carte ga jaxasoo woon na fa ndax bara wàccal bëgguñoo dégg beneen mandat loolu askan wi doon wax ñeneen ñu bëggu te dégg troisième mandat mooy waa CEDEAO neneen bokk ci mbootaay googu dootuñ nangu benn président di am ay ñetti mandat c'est ku ci gën a bëgg nguur sa morom rek nga ne kii la li ñuy wax ak buñ toogee la ñuy def du nekk benn turbine yéen a kaay moo ñu ko xamal le soleil yéen a mel ni ku naan leen suñ président bu Sénégal de Macky moom xaw ma dana laaj troisième mandat wala déet waaye daal prix Sonac 2020 takkal nañ ko raaya ba ndax jàmm ji mi dox ci réew mi ak yorin wu sell wu mu yor réew mi le quotidien yéen a ban réew Sénégal la yor yorin wu sell moom Macky bàyyi leen waxu caaxaan caaxaan wax yéen tamit nag wala su fekkee am na njàng me njàngale me da bokkut ci foofu daraa fa sellul waxtaan nañ gi ak seen di syndicat jàngalekat yi waaye seen waxtaan wa jubóo wuñu waa c fa ñuy continuer seen geraw source a yéen a kaay na seen ndaje ma waxante nañ dëgg ca seen biir lu jëmit ci wàllu violence fitna ji ñu teg jàngalekat yi waxtaan nañ ca l'observateur na li xew Sénégal kay fi mu toll ni du jàmm jàngalekat yi dañoo mujj ragal élèves yi ah élèves yi leen di dóor di leen gaaj ba tax daam mbóoj ne jàngalekat yi fa ñoo war a ut autorisation port d'arme yore ay ngàndaay élève bu la nar a gaañ nga wàccee ko ka ñu wàccee ca APR dàq ko kajji football ca biti Moustapha Jaxate réew mi yéen a kaay na léegi kan moo ci war a topp laas yéen a kaay na cas Awa Gueye APR ca Kaolack Abdoulaye a Diallo Oumar Gueye Macky boole na leen ci commission discipline bu APR bi yéen bi na ko sandarma bees yaa ngi noonu ku dof dof rëq sa ndigg de Seydou Gueye ci laas yéen ne Moustapha Diakhaté Macky moo ñu sant na nañ ko dàq ci parti bi ndax kii fa yàq parti nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na Malick Gakou nee na moom ak Idrissa Seck baara yëgoo wuñ ak Macky diluñ ak Macky kàddoom yaa ngi yóbbu ko ci yoon na fa tappale benn këram ca Ngor Almadi donte njiital ONAS weddi ko la neexute weddi mooy ne Sayer Ñang njiital ARMP am na ñu koy fexel ngir jëlee ko ca place ba waa grand place yi ne ñi ko xamal lim xamut di ko laaj ca moom enquête yi ne kaay mooy ndax sénégalais yi fi nii fa ñoo bañ français yi bëggatuñ leen gis am déet am na ñu ne waaw waaw kay na dem bañu soxlaatuñ ko ci dara am na ñu ne déedéet sénégalais taal coow li xam nga fan la nar a mujj léeboo nag lu peen a yaaw seetal Aliou Sall bi ko dégloo ba léegi amul dara luñ ko def lu dul témoin simple ci loo xam ne yow fañ laa tuumaal Abdoul Mbaye Lamine Diallo pelante nañ ko waaye yéen kaay bi nee na non lié defu dara foofu da leen nar a jëm si du quotidien ne ñi yaakaar ne Sénégal fii ak fanweeri at fay mel ni Arabie Saoudi ak Qatar ci pétrole bu bari ak suqaliku déedéet loolu du am de ndax ñun suñ pétrole bi xamuñ jumtuwaay yu ko génnee te contrat yiñ ci signé presque ñoo ci gën a lu ñuy am xaalis bi xaalis bu bari bu toll juróomi téeméer ak ak juróomi million moom la ñu sàcc tappale ko ci ay forage yu ñu waroon a defar ba tax libération ne mafia bi ni mel nag moo tax diiwaanu Linguère Matam Podor Kolda Bakel ak ñeneen xamuñu ndox njiital hydraulique nag moo mu ji weer ña bokk ca mbuxum ba nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Mohamed Cissé américain taalibe Baye Niass ba ñu faatoon ca Kaolack ndangaan jébbal nañ ko boromam ni ki démb ca dëkk bu sell ba mi dina bàyyi l'évidence a kaay ñi ko xamal imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé moo ko taxawee seede ga nag genn la Mohamed ku baax la woon jullite xamoon njëriñ ci doomu adama yi baayam bañ songoon ndoor Abdul Aziz nee na delloo na lépp yàlla ndax ku mën a muñ Baay Ñas bi tëdd Medina mën a muñ sa doom kilifay Medina Baay ak américain yi ñu ngi sàkku ñu teg loxo ñu def ñaawteef bi ni mel ba tey l'évidence yéen kaay di ñu xamal ne foire internationale bu Kaolack FICCA door na niki samedi bi weesu njiit la Serigne Buub yëkkati fa ay kàddu di woo tamit askanu Kaolack ci lu suqali diwaan ba rafetlu tamit ñëwuy si jëwrin ak yeneen réew ca FICCA ba critique yéen kaay moom di ñu xamal ne jàngoro ju bon ñu wax coronavirus faat na ñeen benn na ay chinois ñu bëri jàngoro ja tëral leen ba tax aéroport Blaise Diagne kilifay jël neen matuwaay ngir jàngoro ja dugg ci réew mi tàggat yaram basket katu Amérique bu mag bi ñu wax Kobe Bryant fa dugg ci hélicoptère hélicoptère ba daanu mu faatu ñàkk bakkanam allah stade yéen a kaay ñi ko xamal record yéen a moom di ñu xamal ne Sadio Mané ma gaañu woon commencé na entraînement sunu lamb yéen a kaay ne Ligue Nicolas ma ngay accéléré yëf ya combat Modou Lo Ama am de njëkk ca moom di ñu xamal ne benn xale lu góor lu am fukki at juróom-ñaar moom la ay bandi laaj téléphone am mu bañ leen koo jox ñu ray ko ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca géejawaay ndakaaru laneen lu amoon ndakaar Dakar 25 janvier 2009 génnu àdduna Mamadou Dia direct news na anniversaire am del siwaat na waaye lim seetlu mooy Mamadou Dia lim defal Sénégal bokk ci ñi tax ñu am indépendance waaye tey daal askan wi sénégalais yi fañ koo fàtte maanaam delloo wuñ ko njukkal te fayuñ naar bi xoromam